na sun boroom sun boroom buur bi nga xam ni jomb naa wutal moroom juleeti it ci Mustafa soppeem ba moom mi mu tànn daaf ko muy buntam ba te sant Seex Bamba bu werte yeesul feddli ak njébbal fasaad góorgóorlu ngir xam ni moom lu yàlla def xadimi lil Mustafa muy jëwrinam ju yéeme te jéema way Seex Abdu Xaadar Mbàkke ak doon te lottanaa bi doona sakki moo doon na Bamba tey donoom ci lislaam moo foog sunna moo nu doy fa sun amaam amul moroom ngeen ji mooy ki ko doon ku dib jullit seere na moo mat li mu doon ñëwam nga fii ci àddunaay sunu texe mi mbire rey ku dul boroom doogo fexe doy na ci ay kéemaanam ak ay mbootam ganeem nga àdduna ba tax dañ koo ajuma ñetti fan ci weeru tam xarit la mbër ma feeñ seytaane tiit jàq bërët lislaam di ree ngi rab kenoom sampootina kéefar di jooy ngirub sancam toxootina taarix ba ne caama jalsasin la woon daarul lalimi fiifi ndaam na woon Seex Abdurahmaan ma yëgal Seex Bamba dikkam nga fii mbir maa ka rëy baatin ba ak gana sem ci àdduna doy kéemaan Seex Bamba wax na ca lu muy ilimaan bés ba mu ganee àdduna lañ yónnee ndaw ca say ko Bamba jëma jiitel naa raw mu daldi woo maam Ceerno jox ko tur wa wax ci moom ay mbir yu rëy laaxar wa dal dina ko feeñal dal si nag may naa la waajula seen texe na dolli naa la ak koofi seen texeem nga bul ko sikk ci darajay gan googi doora dikk moo tax ba maam ceer noo guddal yoona wa ngir bëgg ñépp am texe xeetam wa nee ko gan gi am na ay maqaama yoo xam ne feeñtul lut bisub xiyaama kon gan gu ñëw ëndaale yi karaama xam ngeen ni kii du tabbi ciy malaama caag rawam caag rawam la tànnale si xaama aw ci bu weer moo tax mu am imaama mu nekk ndaam ci ndigalal Seex Bamba fa kër sëñ daam abdu may yaaram bam ne fa jëng mër mu dal key woolu mu dal dem jaareeb maa wax loolu maa wax loolu maam abdu boole koog sëriñ mataar suraŋ ñu ànd yoon wa wut si njaareem ñoo ko ñoŋ Seex Bàmba ni leen dox ci naaj te bu feeñ li lañ si njaareem mas la feeñ nee nañ ba mu nuyoog Seex Bamba nee keroog nee keroog ba mu nuyoog Seex Bamba la daal di jox alquran kaamil ba ca bam sasin la daal dal quraanu wàcc gu gaaw moo a doy kéemaanu moo a doy kéemaanu Seex Bamba jox na ko foofa mbubbam boppam ñoo ko fa mboot yu réy yu kenn dul mën a xam te yoo ko fab te yoo ko fab door a xëy ñaanal ko jox ndigal mu dal si ndaam waajal ko naka mooy ak si dal di door njàngam am maam Abdourahman kii jàngal mbar ma wax nañ ne ba mu ak see ci hajj lañ ko woo ci ndigal Bamba mu dal di fay bawoo wowal a yoon la làqi nag maqaama wa tur wa lamba dolli koy karaama mu dalli fay jogeeti ñëw gede buso nee na mu dalli fay jogeeti ñëw gede buso ngir yàggalem njàngam ca maam Mbàkke buso ab diir bu néew mu bind kaamil jox ko jàng fii lépp lu war mu xam ko jomal na képp kuy borom sariya mooy ilimaane gaaya aw haqiqa daa boole